asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ah, sëñ Bas. waaw man koor moom. Hmm. moom bu ñëwee man appétit dama ci am dara dara dara dara dara rek. dama xamul te te koor rek la may dal nag. Hmm. gis nga koor daal sëñ Bas bu doog jotee nii. Hmm. maanaam euh, aw mburu la ñuy jël bu ko defee coppati ñaari bopp yi ndax bëgguma bopp mburu su ko defee buñ ci defee fromage ak saucisson ak frite baxal ay nen def ci def ci ay tomate ak ay yu bari nga ba mburu mi mat kilo su ma ko lekkee ba mu jeex boole ko ñaari kese ga fi dara dara dara dara dara du ko man rek dara. Ah, wax dëgg. Euh, xanaa ma toog tuuti nag bu ma julee timis. Hmm. am na fonde bu ñu ma defaral boo xam ne baax lañ koy wax nga xam ne dañ ci def junjeer ak daqaar ak limon fonde bi. Hmm. su ma naanee ka karafa fonde bi daal. Hmm. su ma noppee dara dara dara dara dara du ma ko man. ah sëñ Baye ah, xanaa ma toog tuuti rek. ndeysaan soxna di dañu bëri yërmande. soxna Xadi dana indi palaat boo xam ne salaat lañ ci def. mu am yàpp ak ginaar. ñaari su ma lekkee ñaari pooj ñaari laaf lekk dënn bi. Ah. mos ci salaas yi dara dara dara dara. dara <laughs> xanaa man nag toog toog rek. bu ñu mm-hmm. naafila. Mm-hmm. naafila ba noppi nag. Mm-hmm. jigéen ñi dañu ceeb ñu daal yekk ceeb bi. <laughs> bu ceeb bi teg nag. ah ma ci lekkee lekk lekk lekk lekk ba kii. moom daal dara dara dara dara dara du ma ko mën rek. sëñ Baïkara du mën dara. xanaa daal dina naan ñaari kaasi bisaab ak ñaari kaasi euh, Dakar ñaari moom rek laa ci teg waaye gis su ma ko naanee. dara dara dara dara dara du ma tok ba ay 2 heures rek. 2 heures mom bu jotté ñaari ci bu mbacké mbàkke lañ may togal bo xam dana bari pullo ak yàpp ak ginaar. soxna xarit da koo man mom tam ma lek ci. suma ci lekke bu sour nak nan ñaari kaas ndox. nan lek ñaari pom ak ñaari banana dara dara dara dara dara dara dara dara rek dara. Ah. Ah, xana tok ñaari ba ñël rek su ñël jotté nak suma juggé jugee. Euh, ñaari karaafu mu xam sa lay doon. wala fonde wala sombi. su ma ko xasee naan nag jeex. ma nan nan café lekk juróom ñaata tàndarma ak kaasu meew. dara dara dara dara dootuma ko. boo amee appétit nga wax ma ko de rek. ah, ah. yaa ilaha illallah yow bis boo amee appétit nga wax ma ko.